dafa wax moom moo il est li nekk ci moom kese dëgg dëgg dëgg li ne ci Dame hmm. loolu la fësal man li ma gëm laa lay wax Dame Mbodj va député bu nekkee député bés buñ ko tàllalee le poste de ministre de l'éducation il ne va pas cracher de la en fait là-dessus avec ce régime là léegi yooyu tamit pas ce régime là. ay lu gën a procès régime lu leer laa la woon. gars yi ñu ci bari xam naa seen agenda yi lu mu doon lu bëri mais du parfois je parfois damay xaar mu poser acte mais daam mooy mais c'est comme ay Guy Marius Sagna c'est des hommes politiques loolu mooy dëgg. tu as été le campagne de Ousmane Sonko. après ñu naan le fait le on doit lui rendre hommage lii yëpp waxoon na ko. société civile politique man je suis pas contre ah société civile politique mais lu bon mooy parfois ngay embarqué parce que xam nga on est une société en fait de en fait de victimisation. ngay mm-hmm. embarqué nit ñi ci yenn yoo xamante ni yow xam nga ne du loolu mooy sa agenda Dame Mbodj moom effectivement. Mm-hmm. je le considérais euh, comme quelqu'un de la société civile. Euh, Euh, comment dirais-je encore professorale éducative autant pour moi éducative pas autant pour moi mais en fait pour mieux euh, nommer le mot hein mais après mais gis nañu voilà il a placé le curseur euh, sur un autre cadre donc Dame Mbodj Guy Marius Sagna même Capitaine Touré sax man bu xëyee nekk politique man dama bett. ah, ah oui lu leer laa la wax. mais aussi tamit en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mal en soi parce que aussi tamit xam waay le Coran c'est l'encyclopédie le prophète en incarné en était l'incarnation cela veut dire quoi mooy loo xësee ba yàlla dimbali la nga am xel di xalaat feebaruloo mbooleem luy it yitteel askan wi sa préoccupation la en fait la doon yonent bi moo wax ni képp koo xamante ne nii li ñu itteel wala li itteel askanam mm. itteelu ko kooku bokkul ci ñun donc politique nekkul lu bon nekkul lu bon moi je pense sax li tax gars yi di dugg euh, une entrée boo xamante ne bii c'est de pas à pas c'est parce que dañuy ragal comme genre yi mm-hmm. gars yi saaga leen et que ñoom aussi tamit acteurs yi ñoom ñoo fexe bonal yëf yi juste pour kenn bañ leen fekkasi mhm. ñu mën def li ñuy def ku ma waxati Sénégal dëkk bu ndóol la danaa la weddee weddee weddi ba nga jóg daw loolu ko ñëpp laa koy wax démb rek j'ai eu un échange ak benn benn benn benn benn xame ñaar lañu man ne bu kenn nangoo di ne Sénégal bu kenn nangoote yi naan la politique lu bon la lan moo tax léegi ñoom ñuy véhiculer ce message la wala ñu ko gëm tey ñëpp bëgg nekk ay politique ñëpp ñëpp journaliste bu jàpp ne bu jàpp ne am nga la capacité intellectuelle réfléchie yaa ngi dégg le rationalisme qu'il faut sens de la solidarité qu'il faut surtout moom jàpp na da nga war a wàcc ak gëm-gëm nag le sens désintéressé de servir parce que ñi nga xam ne dañuy servir sans intérêt moom la alxuraan di wax ne allazina yunfiquuna amwaalum billeyli wa nahaari sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim fala xawfun alayhim wa lahum yahzanun c'est-à-dire mooy ñi nga xamante ne ils dépensent de leur bien de leur argent sans arrière-pensée yàlla nee na bu ñu ñëwee yowmal xiyaam maa ngi leen fi dencal yool bu mag a mag a doole bu mag a mag a mag. mais Guy Marius Sagna ak euh, ak euh, Dame Mbodj est-ce que jàpp nga ne am seen chance bari na pour ñu nekk député ci ci ci ci groupe boobu ñu nekk. coalition Yewwi Askan Wi. mais ça dépend il y aura des discussions. parce que tamit ñoom ñoom mujjee ñëw ah. non mais non non euh, ça dépend ci position bi ñuy nekk. aussi non d'ailleurs. parce que xam naa ñun ñëpp ci ci ci liste proportionnelle bi la ñuy bëgg a dugg. non xam nga affaire bi lan la. muy liste nationale bi ça dépendra des négociations. et que aussi tamit kuñ ci investirul nga bañ a def la le le l'ego surdimensionné là. Mhm. après taxaw fii on a vu ça avec euh, Déthié Déthié on a vu ça avec euh, avec avec avec euh, avec Thierno Bocoum. Mhm. en 2017 ak Déthié Fall. il a clairé ne partout que ni non am naa liggéey et du loolu. ñëpp a xam nañ ni Thierno Bocoum mais loolu moo ko boole Idrissa Seck ça c'est clair. léegi gis nga ko ma nga fay ca beneen coalition boobu nga xamante ne man yaakaaruma sax. danañ def lu extraordinaire. Mm. non en fait loolu xam nga nga aussi tamit le coefficient le coefficient comment dire pourtant encore le coefficient électoral dafa xaw a yëg li doon maye député ci trente sept mille fois léegi boo defoon ndànk est doo laal ay soixante mille cinquante cinq mille soixante soixante six mille li fi dafa gën a yëg sëñ bi yow balaa ngay jàll nuuru naa nii rek suñ parrainage balaa nga koy jàll. yaxutu tëb de. laa ilaaha illallah. baaxul. maanaam pax mi xóot na te yaatu. ca mm-hmm. mais Pape ji yaa ngi ko wax journaliste yi nga xamante ni am nañ am nañ ay engagement wala am nañ loo xam ne si ni tey eh, bëgg nañ ko def ci réew mi. Mm-hmm. donc ci politique eh, yow dàqloo pour ñu engagé ci ci ci li nga xamante ni moom moo di ku ci mel ne Pape Djibril Fall gis nañ ko mu lancé wu fan. Mm-hmm. Eh, ne dafa bëgg bokk ci législative bi. écoute su bëggoon ñun def nii sax ci politique la ñuy ci la bokk. parce que mm. politique du dara lu dul gérer c'est-à-dire léegi gestion bi. Mm. yow mënoo def lépp. gis nga président de la république fii la taxaw ni premier ministre fast mm. am na lu koy échappé man loolu laa gëm. wala bu dee amul lu koy échappé tamit parce que en tant que humain am na loolu lay échappé. moo tax nga ay relais. relais yoo xamante ne bii dañu lay niru dans le bon sens. ku deful nag li nga bëgg ak li askan wi bëgg bëgg da nga a jëlee loolu mooy politique. non PDEF. PDEF mosul mosul sori politique en réalité PDEF mi nga xam mosul sori politique ba pare PDEF aussi c' est un socialiste il est foncièrement socialiste. c' est un socialiste. pur jus. la PDEF. dafa ma dafa ma moom ay ADN-am. ah d' accord ay pratique am. doxalinam. Euh, maanaam. relation yi mu amal nit ñi ñi ko xam. socialiste la ci idéologie waxuma la c'est socialisme dévoyé de waxuma boobu waxuma la socialisme par calcul de par circonstance non non maanaam nit koo xamante ne loo am bokk ko ak nit ñi sans gis tal boo demee ci téere bu ñuy wax euh, defe naa xalul masail la tudd wala nga dem moom mooy sarxaw laxdari bi ngay dégg ngistal baaxul quoi dafa yàq jëf hmm? ku mel ni ñi ma la wax nii socialiste nga te loolu par exemple mënu ma ci weddi te dëgg socialiste. ñoo aussi yéexul jóg. non man. jàpp ma ni dafa yéex a jóg parce que moom des élections. ah yéex a jóg par rapport à l' man je pensais par rapport à son âge. waaw foofu aussi tamit le temps il est limite. Mhm. il est limite mais xam nga aussi. bëri na ay aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathisants même si ça n'a rien à voir avec l'électorat non xaaral rek position yi muy moom moo tax dañuy ñu ci bëri ci yow dinañ am waaw yow ñu ci bëri bu wax loolu am na ci bokk benn bokk yaakaar déet am nañu bokk fépp. am na loo xamante ne. je profite de l'occasion pour le dire. toujours sur le sur le régime donc ñi si bëree bëri. et parfois il est modéré ah. parfois il est modéré. bi la ñuy la ñuy la ñuy nekk ñoom ñooy ñoom ñoo koy sympathiser. écoutez man je précise de l'occasion pour dire que man je ne suis pas son directeur de campagne parce que dafa am ko ma ne ma dégg naa yaay directeur de campagne yu PDS. Mm-hmm. ne ko waaye ne ko Kobé génnal ci li nga nekk man journaliste la di jéem a analyser nekk solo yi loolu aussi il fallait préciser ça. mën nañu bokk yi bennoo gaspora bi bari na fa ay soppe yaa ngi dégg un peu partout à travers le Sénégal mais loolu aussi mën na euh, comment dirais encore euh, tax nga juum parce que waaw parce que sympathisant militant militant engagé électeur bokkewuñ dara dara lañ bokkewul te PDEF xaaju Mbaye Dof moo la gën a xam li xew